dëkk nin war a yeesale dëkk dëkkuwaayub sëñ bi ni ko sëriñ bi moomee la sëñ bi moomee léppi kër gi génn kër gee rek nee ñu bëggoon na kon bu nu eggee ci altine ji ñuy séenu mooy juróom benn fan ci weer wi insa arab yi ñu tàmbali ko kon waaye nag li ma waxoon ne waa Ndakaaru waaye li mu waxoon ni li tàmbalee bambay jëm saw ni ni ñoom bokkuñu ci ci liggéey bi lañ wax ci liggéey bi lañ wax de seen i jëmm joxe ji moom ñëpp ko bokk waaye seen ak seen compte ñëpp ko bokk ne joxe gi moom ñëpp ko bokk suñu boo ah, bi Ndar bi la wax ni mëneesutu xëyee Ndakaaru ak Ndar loolu dafa diis loolu day diis ñu bëgg ñu bëgg sori sori نسين جف دي نيو تن باي فا سيني جيم ني تيو نا نسين لب دي نيو نيو بو التني اك جامو ني نيو گاو نا اك تيتلا تي نون سين بارا مير بن دون ديف توفار بار مير بن دون ديف توفار بار دايل ما ام شيخ ابراهيم فال سيرن ما بند جوب يين نيب تي ген بوك يين خلاتون مير يين خلاتون مير با ban ko waxee sëriñ bi. ni ko nag yéen ñu ko sëriñ bi ñoo ko yenoo. ni ko yéen ñu ko sëriñ bi ñoo ko yenoo. yéen a ko waxoon. yéen a ko waxoon. ba ngeen demee. ba ngeen war a tàmbali liggéey ba. ba war a tàmbali liggéey ba. bis bu njëkk ba. bis bu njëkk ba. danoo takk rajo yi. danoo takk rajo ya. waaye ban ne laa ilaha illallah. waaye ban ca waxee ni laa ilaha illallah. Ibrahima Dia daw woosi sëñ Moustapha bi. ni ko kaay wuy sëñ bi. mu ñëw sëñ bi ne ko nan tekki rajo yi. koo xam ne dangay sàcc. koo xam ne dangay sàcc. nga bëgg koo day sàcc. koo xam ne day sàcc. nga bëgg koo weer. nga bëgg koo weer. loolu du li. loolu du de. li ñuy def lépp ak càcc la li ñuy def lépp ak càcc ci ñun Cheikh Modou Falilou. waaye booba nan tekki rajo yi. waaye booba nan tekki rajo yi de. kenn si kërutu kenn si kërutu fa. nee ñu itam. lii defar sëriñ bi. lii ñuy bëgg a defar sëriñ bi. ci biir këram gii. ci kër gii. nee ku ci sam xel rafet. ku sam xel rafet. ku sam xel rafet. ah da nga koy nangu ci sa xol. da nga koy nangu ci sa xol. ñii def lii. mais ñii def lii. la ëpp ci leen war leen war defal sëriñ bi. la ëpp ci leen lan ca man. lan def nañ ko. li ngeen li ngeen baree dégg ci ñun rek. li ngeen di bañ a dégg ci ñun rek. li ngeen li ngeen baree dégg. ci sunu làmmañ. as gor. as gor. su fekkee gore na. su fekkee gore na. boo ko nee. la la war lepp def nga ko. faaw mu am jeex jaaxi xol. faaw mu am xol. xol fagg lol ndax def la la war murid ni. yi. yombul yombul de. da nga nan ko. la la war de la la war dey. la nga ci man lepp def nga ko. lol lan ma seral seeral murid yi. loolu lan mën ñi bëgg def li yeen ñi ko bëgg def. ñi ko bëgg def. li ëpp ci li leen war seen diggante sëriñ bi la ngeen man lépp def ngeen ko sëñ aboo ci ab xare lañ bàyyi ko ah, tëralul xare ba de ma nga fa di nu xaar dañoo bëgg ba la ñuy caa jëmaat sàcc si tàmbali lii su baat ba jibee ñu boole ko baat ba. ñu boole ko baat ba. ndax daa am ñoo xam ni. ndax daa am ñoo xam ni. nu ñu war a defee baat bee. ni ñu war a defee baat bee. ni ñu war a defee sëriñ bi. ak bëggam moom. ñooñee nag. bu sëñ bi demee ci liggéey bee. lu yàgg yàgg. ñoom ñooy nekk fii rek fii di ko fa. noonu lañ bëgg ñëpp déggee ko nii. tàmbali liggéey bii. mën la taxawal liggéey bii. mën la taxawal liggéey bee. ab sof la ci. waaye du ak sos. kon na ñëpp yóbbaale loolu sëñ Baara Mbóoj ku dégg kàddu gi ku ne na nga jàpp ni lépp liggéey bi yow rek la war nga fas loolu ci sab xol loo ci man nag ci cër yi loo sori sori nga jëflu ko rek gannaaw na ngaa sori waaye ñi teew nag jige lool liggéey baa ngi ni ci seen loxo na ko ñëpp bokk jàpp rek yàlla na suñu borom defal ak wér nag ban tàmbali koog jàmm mu àgg nag ci bisimilah tàmbali ci bisimilah rahmaani rahim dara yi gàllankoor bañ ci am rek barke Cheikh Modou Falilou ndeysaan wallaay